الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين وهو القائل وقوله الحق وله الملك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام والبركة على نبيه محمد القائل الصيام جنه waala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa ajmain yéen mbokki taalibe yi ak mbokki wa rahmatullahi wa barakaatu maa di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci turu alcheikh mohamadun il muntaqa alxalifati al li muridin yal na ko yàlla sàmm dëgëral ko dooleel ko di leen jottali ci ndigalam kàddu yi ma koy tàmbalee ndokkeel al aalam al islaami bépp ci weeru koor wi teru di weeru mbaax nuy ñaan yàlla defal nu ci tawfiq taysiir ban def ko niñ ko diglee te nangu ñu lépp gannaaw loolu sunu borom nee na moo farataal ci nun koor ngir len képp nu am taqwa taqwa nag li koy jëmmal ñaar la lijtinaab ak limtisaal muy bàyyi tere yi yàlla tere ak def ndigalam yépp kem kàttan lim tere suñu lor képp sant suñu yiw rekk ci ne wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarrimu alayhim alxabaa'is ci a yeesal pas-pas yi gën a fóot xol gën a kaweel yitte yi ci sunu diggante ak sunu boroom gën a yeew bopp ci buumu njàngaleem sëriñ bi nga xam ne weesuwul dinu jëme ci def ndigalu yàlla bàyyi ay tereem kenn ni ko yonente Muhammad andee nan nan koy teewal saa su ne te xam ne li gën la tànn indil ñu ko ñu xam ne ndigal lu jóge fi moom nii ñu tax na ba lor du ci mën a jóge buñ ko defee def lañ tere yëpp safaan bala njariñ du ca mën a jóge laa tafaalu shay'an bi gayri idni فالإذن شرط في قبول الشأن buñ koy wax loolu buñ wax defe naa ne ndigal lu dama ne ndigalam moo tax ñuy wax ñu ngi soññ ci li jëm ci natt bi yàlla wàcce muy mbas mi am na ñu naan loxoy doomu aadama mi ngi ci waaye du tee muy natt bi bu yàlla wàcc ndax mbindeef luy pexe ngay rëy day soob yàlla mu soog a sotti tubaab yi kan nga leen ëpp pexe lu ne fexe nañ ko ngir jële fi Sëriñ Tuubaa te sottiwul du nuy pexe de yàlla moo ci àndul la yàlla bëggoon def na ko muy jële ko fi te seen yoon bu ci ne yafalu ma yashaau wa huwa ala qadir sëriñ bi nee na ñoo ngi bii yàlla wàcce ak gëm yàlla ak wóolu ko ak moytu ak fegu ñi ko yàlla santaane ci yi waa kër docteur digle ñuy digal ñëpp ñu ànd ci ak ñoom kuy diglu digalam kone ñu ngi la koy digal ñii digal ñu jàppale leen ci lépp luy fekk tasaaroog jàngoro bi di coronavirus lu doone ne di sol muuraayu gémmiñ ak bakkan bu jàppandee tey nit ba génn mënta ñàkk mu set di te ñu del see raxas suñu loxo ak saabu ba mu set te ñu moytu joxante loxo lu baax du doy la wolof wax dëgg la waaye asalaamaaleykum waaleykum salaam doy na sëkk ci nuyoo ci jamono ji ak jamono yu demee na moom ba yàlla jeexal faral di wax ak nañ koy waxe ñeen ñi di wax ne ibqaw fi manasilikum ñeneen ne si tey xew ñeneen wax neneen ñeneen neneen wasaayilul ilaama guddi ak bëccëg ñu di ko defe naa ne ta def la yàlla فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر mooy waroom xam-xam yi rek moom mooy waroom xam-xam yi ci diinay yahud ci waroom xam-xam yi ci diinay yahud yahudiya ak nasraniya ña cay ahlu zikri mooy al ahbar wa ruhbaan waaye ak faju ci jàngoro yi docta yi ñoo ci ahlu zikr nañ leen di diglu nañu déglu bu baax li wax ci fegu ak faju te koy topp loolu du tee xam ne yàlla mooy kaafi yàlla mooy shaafi julit julit bu dul naafeq bu ne gëm ne yàlla mooy reggal yàlla mooy màndal te du ko tee lekk du ko tee naan fegu ak faju yëpp noonu la war a demee xam na yàlla mooy kaafi xam na yàlla mooy saafi wërta tee ñu koy def lenn lu ne liñ yàlla di ko fa jaarale fa fayam koy war a sàkkoo ci moom buñ defee li ñu mënal suñu bopp ba noppi nu boole ci di ñaan yàlla ndax mu defal nu liñ mënalul suñ bopp boo bañee sabaaba réer ko soog a teg sàmm bi ci loxol yàlla ku mën a ñaan na ñaan képp koo xam ne wóor na ko ne imaan mi ngi ci moom te mi ngi jëf lu baax kem kàttan na xam ne adduna bi soxla na ñaanam sëñ baa ngi ñaan bu baax waaye lu baax du doy bi yàlla ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin day mel ne ud'uuni astajib lakum seetewul kenn waaye am na laaya boo xam ne manis na caa xami ne settee na naafiq ak faasiq moo xam ud'uuni astajib lakum da nga koo firee jaamu leen ma ma yoolal leen ci ma defal leen ci tuyaaba wala da nga koo firee ñaanal leen ma ma may leen lu ci ne mën na koo firi moo tax baatu ud'uuni ànd ak baatu an ibaadati bañ a ànd ak an daawati baatu an ibaadati itam ca mujj mënoon naa ànd ak baatu abdooni waaye mi ngi lépp day wane ne seeni benn la lu ci ne yàllaa ko yayoo ci moom lañ ko war a mooy ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ku yëg ci boppam imaan mu wóor ko ne xolam naafiq niw ci te muy def lu baax rek kem kattan sañ naa sañ naa jàpp ne yàlla dana nangu ab jaamoom sañ naa jàpp itam ne yàlla dana nangu ab ñaanam koo xam ne itam rafet nga njort ci na xolam fiq ñëw ci te yaa ngi gis li yàlla digle ñu ne ci kem kattanam bàyyi lim tere sañ nga ko la ñaanale yàlla dana ko nangu kon nag ñi yëpp seen bopp loolu nañ ñaan jàppale sëñ bi ci ñaan te du ngóor-ngóor itam gis ci war na sàkku ñu ñaan ak doonte ne loolu du ko tax a naagu jàpp loolu du naagu du ko tee góorgóorlu du ko tee itam moytu seytaane ndax seytaane daa may yàqal nit lool lii la sëñ bi waxoon ne naa ko naa ko ci des rek ci man la waaye moom def naa ko ni mu ko mën a def wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu